premier parti après élection législative bi ni day def nemmeeku tuur mais xam nañu ko ñun si la ñu taxawu Sénégal ñu ni Khalifa Sall sa ayee ci président conférence des leaders nag jot na nga moom sa bopp yow aussi nga def sa motti mottali yéene mm-hmm. parce que dañu bëgg nga nekk candidat mais diir boobu yëpp kenn nekkul ci yeewu askan wi ni ah Khalifa Sall la bindoon pour nga réhabilité wu kenn waxu ko ci. Mm-hmm. ñun aussi ñu am suñu fulla ak fayda. yàgg ci arène politique bi. xam ni yoon wa ñu mën a jaar pour mën a bokk mooy bi ñu wootee dialogue foofu la discorde bi commencé. Mm-hmm. mais loolu bu muy am dafa nekk aussi problème am ci biir yeewi maanaam kenn am problème ak yoon ci biir yi looloo tax mënuñu nangul lool mais amul fenn fu ñu bind ni waruñu dem ci dialogue mhm. wax nañu ni waruñu jege benn nguur wala ku bokk ci nguur mais Khalifa Sall jegewuñu ko wax nañ ko mhm. jegewuñu nguur waxtaan ñu ak nguur bien que jéem nañu ci Khalifa Sall ak ñi bokk ci taxawu Sénégal y compris ak ko ñeen ñu mel ni ma jege ñu pour xëccu ñu ñu dem mais am nañu bokkoon taxawu Sénégal fekk ñoom dem nañu bu yàgg te jamono bu ñuy dem sax fekk na Khalifa Sall nekk ci xat-xat saa yeewa ñu ne ko diw de sa jabar waaye dem na fekk jële Khalifa Sall di dox bëccëg doxul guddi mhm. doxul ay jéego ci pantre ba ñu wootee dialogue ba yeewi comme F24 juddu woon na aussi pour nii dañuy xeex pour troisième candidature du am dañuy xeex pour parenage bi ñu seetaan ko donc am ay ponk yu mu génne Khalifa Sall ni man dinaa dem la tax may dem nag du sama jëmmi bopp kese mais askan wi mu ñoo ma yóbbu te yónni te yàkkamti bu ma demee dinaa fa wax seen mbébét moo tax doxul guddi doxul pàccoo doxul dox beneen dox bëccëgu ndara kam ci gis-gisu askan wi devant le président de la république ak ña fa teew ñëpp mu wax ci kàddu gu leer ñëpp dégg la mu fa wax lan la mooy li nga xam ne moo doon mbébétu yeewu askan wi doon mbébétu FN4 yow président Macky waruloo bokk ci élection yi. mbirum parrainage bi foog ñu waxtaanee ko. teg ci nii euh, lan la ñeenteelu poñ bi sax lan la. détenu politique ñuy jàpp nañu leen bàyyi ñu ñibbi seen kër ñeenteelu poñ bi mooy ban. Ah, way nañu fexe ba élection yi ñëpp bokk waaw tout le monde sans exception donc lii moo doon mbébatu askan wi am na sax poñ yuñ ci yokk ba ni maintenant conseil constitutionnel moom rek moom moo daan am sañ-sañu wax ni kii candidat la kii du candidat ñu ni léegi nañu ko def benn dispositif boo xam ne képp ku bëgg bokk da ci ñëw bokk ñu xool parce que pour ñun tame la woon boo xam ne day def sélection mhm. donc ñu am ci poñ yu am solo foofu daal lañu commencé dañu tam dañu dëkkal fu ñu dëgg mais ku xam Khalifa Sall démb ak bërki démb xam ni Khalifa Sall du kuy njuuj du kuy baara yëgoo du kuy def loo xam ne dëppwul ak yoon mm-hmm. lii moo xew ci coalition Yewwi Askan Wi am na ñu xam nag di nemm ci biir mm-hmm. comme am na ñu xam ni di def leneen mais li wér te wóor mooy mbiicoo ak mbàllo boobu ñuy wax man gëm naa ni yëfu gone la